so dafa doon loo xamante ne il faut nga nga fas jom daal liggéey waaw nga mun a train sa baat bi baat mooy everything ak uh, thinking la nga war a xalaat daal dafa bëri so danga war a moytu ci nit ñi disturbance yooyu noonu waraloo ko accept too much so dëgg-dëgg daal maa ngi tëju maa ngi tëju di gën a liggéey bu baax right mhm. yow yan Gambian artist nga woyal or just fu mu nekk nii yaa ngi just focus pour di wëy yow keena non non maa ngi wëy wena frikijo wena nansi nansi frikijo ban way alo nimbara gambia okay. musolu alo nimbara wow Wow. yar yaw wa wena frikijo bobu ak nansi tam sina muso wa amna yenen tam ñuma soxla pour ma def ñom combination okay. waaye euh, ñëwaguñu dal mais dañ ma call pour ne ñi ngi ñew ok yow naka nga gisee Gambian music industry bi ay de Gambian music fu mu ne nii sant yàlla man ci ci trop wax uti nag first time before fu mu ne nii am nañ support mm-hmm. nit ñaa ngi ñoo faale parce que music is all baat ndax support am faale mm-hmm. soo amul ñu la faale ak ñu la yëgul doo mën a dem waaye fu mu ne nii sant yàlla am nañ fan si fan ñu ngi taxaw suba ngoon guddee bëccëg saa yoo leen wooyee rek ñu ngi jóg loolu yëpp ñun daf ñu neex waaw jali yow xam naa ñuy seetaan bari nañ mm-hmm. te sa fans yi ñu bari ah, macha allah bëgg nañ la bu baax a baax yoon mm-hmm. yoon yan constraints moom nga dee face like comme yan difficulties sa mm-hmm. music bi moom nga dee face because ñu ngi laa seetaan xëj na moo am koo xam ne dina la bëgg a jàppale sa music bi waaw dëgg la xam nga music dafa yaatu li nga bëgg doo ko mën a am the same spot dëgg la il faut nga jël uh, one by one step by step ok difficulté bi ma am suma music bi ay loolu moom il faut ñu am ko parce que anything looy def il faut nga expect for this difficulty no matter how so I need more support comme li ma la doon wax fi dañu war a génn release suñu album we need to travel li liñ bëgg daal is too much dañ ko mën a wax fii yëpp right now waaye maa ngi ñaan Gambie yëpp nañu jappalé baax a baax a ok yow fum nekk right now comme si fekkone da nga warona am ko xamné na la bëgga jappalé jàppale. Mhm. si lan nga bëgga fum nekk nii la gëna a moy suma affaire album bi. ok it's very important. ok wa suma amé mom kuma ku taxawon mom dina ko liggé right now. ok inshallah ah Jali bëgga nañu xam rek am Jali dafa single wala Jali amna jëkër Jali amon na jëkër oh waaw waaye amat amaguma amatut. amatut yeah waa te lii lan nga foog ne mooy problème bi. <laughs> non yàlla la rek Aida. waaw déedéet xam nga. Ah. dégg la yàlla la ba. Mm. diñ toll si jamono boo xam ne. fu mu nekk nii right now. Mm-hmm. ndaw yi nekkut Gambia rek foog naa it's all over the world. dëgg la suñ yaay yi nuñ daan mun a toogee sëy. dëgg la ñun munatuñ ko. man saxoon naa loolu. léegi man dama dama bëgg xam am ñoom nuñ daan sëyee. ak mm. ñu nu ñoo sëyee léegi dafa utee ndax. léegi wool bi moo change na because bari nga dee dégg nit ne dugg na si sëy mm-hmm. du yaaga mu génna but fu mu jaar mu nekk loo xam ne problème because xam naa ne mm-hmm. bu desee si yàlla rek bëgg na jigéen ñi ñëpp sëy nekka you know téye sa sëy bi nga góor góorgóorlu si be mm-hmm. bés bu yàlla defee kenn si yéen yàlla jël leen but léegi right now dañ toll si foo xam ne loolu amatut loolu sax lañ dee wis loolu sax li nga wax fii loolu parce que kenn ñaanu yàlla nga dugg si sëy nga génna loolu kenn ñaanu ko yàlla loolu la ñëwee si xëy na yàlla foofu la ko dee dogale rek te ja doomi jeet naka doomi aadama fu la yàlla yemale rek foofu ngay yem. dëgg waaw. waaw ok but then mu ngi mu ngi ok <laughs> because xam naa ne fu mu nekk nii. <laughs> Ah. bëgguma laa gën a just you know mu ngi fine. waaw yow fu mu nekk nii ren nga am pour wasa fansi. ndax lu tax fansi ñun ñëw dem fen mhm. ñii ñooy bàyyi seen nalaw bàyyi seen soxla yëpp dañu topp dañu topp man awma seen fay dama leen di bàyyi yàlla rek. léegi yo 2013 bi lan nga amal jëli neen si Amba Aida new surprise mu ngi a very very big surprise it's on the way coming okay very soon yeah okay mm. gambe ñu ngi laa seetaan ñëpp mm-hmm. a ngi déglu jali bu fekkee ne dafa am ko xamné ne bëgg nga ko gërëm mm-hmm. bu fekkee ne dafa am lo xamné bëgg nga ko wax fi ni si BNL bi yaay borom ma ngi lay gërëm yow sax si ta bop Aida parce que da nga doon ko xamante ne da nga bëgg sa liggéey et puis da nga da nga itam wàcc sa bopp xam nga liggéey bi dama li ma lay advice mooy ne yombul lépp looy def ci aduna il faut nga muñ dara yombul mhm. maa ngi lay gërëm baax di la ñaanal di la advice nga gën a fas jom mhm. di ñaanal sama xarit bi ehm, kumba dafee mhm. aji kumba kumba bëgg la ay siix lañ nag ak siixandoro mi ngi Dakar aji ndey maa ngi koy gërëm baax a baax a baax waaw ngi gërëm suma yaay ak suma rake fili suso mi ngi ni toog suma xarit yi Mariama am fi fans club tam ñoom eh, fekka gaa ngi ni toog ñu ñëw may support ak suma xale bu baax ay Aïcha Wage Aïcha Tungara xale bu ma bëgg la ndeysaan bés bi ma gis dama doon woy ci benn xew rek mu gis ma ñëw lang ma di jooy xale bi bëgg ma ci xolam rek ma invité ko si plateau bi tey mu daal di ñëw man daal awma li ma fee wax tey lu dul kontaan rek dama kontaan sama xol sedd na ci yéen Uh-huh. thank you very much fu mu nekk nii nag mm-hmm. ah duñ def dara rek du dul uh-huh. nga ñëw fii nii rek teg fii amul benn problème <laughs> man yéen laay dëggal loolu <laughs> leen bëgg rek laay def thank you okay thank you so very much Jali um kontaan si li nga ñëwee fii nii tey si BNL bi duñ def dara fu mu nekk lu dul am a short break waaye before ñuy am short break bi du ma def dara lu dul ñaax yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di seetaan pour bu leen fàtte like suñ Facebook page bi ñu ngi am Twitter page also ñu ngi am Instagram ba pare ñu ngi am website ah, mun ngeen na dem seeti suñ website bi si www dot banjulnightlife dot com ñu ngi am foofu noonu news yi nga xam ne mu ngi xew si Gambia bi fii nii ak events yi nga ne mu ngi laata xew si fii nii si biir Gambia bii nii di leen fàttali ne suñ event bi nga xam ne mu ngi xew January 4th um, Banjul Nightlife ñu ngi am big event called Celebrities New Year Celebration with top Gambian artists di leen ñaax yéen ñi nga xam ne yéen a nekk suñ fans yëpp ngeen génn si ñëw support si um, Jaama Hall lañ ko defee Gambia nag fu mu nekk nii ci kaw ci kanam music bi mu ngi dem si kaw mu ngi dem si kanam yéen ñi nga xam ne yéen a nekk fans si yéen a nekk supporters yi da ngeen war a génn you know lépp loo xam ne ñu ngi ko def rek mu gën a yomba wax bi tey nag du bari because fu mu nekk nii ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi toog fi ñu ngi yaakamti ñi nga xam ne um, ñoo fi ñoom lañ fi am tey muy suñu artiste pour ñu ñëw perform nañ am short break suñ jógee si short break boobu noonu rek dinañ am news of the town mu perform si perform bi pare ñoo am jëli neene suusu One, two, one, two. celebrity Where you compete on your favorite celebrities, restaurant in New York City. Also, featuring guest artists Man Abumbai and Man Jimile. Nyun Jimat. Nyun Poetry power Man Jihadina Panek. Nyun Humanity Stars. Nyun Chibi. Nationality is a heartbeat. baby. Man Tomna Panek. Yeah, your boy G will be there. And me, Mandy Moby, plus special surprise guest artists in the building. ñakati si ñakati si ñañaxe ñañaxe ñañaxe ñañaxe ñañaxe ci ñakati ci ñakati bañ wo wana, la woona garab la woona lan la woona garab la woona liñ fay def di ko